Diarra Dieng. maam Diarra. Dieng. ban non problème bu ñu metti la. parce que Turquie depuis classe sixième ba tey ñu ngi ak ñoom ci école bi comme mu ñu xëy un bon jour nii ñu jël leen bëgg leen a génn quitter le pays bi si mi année bi nii indi yeneen nga ñoom te ne xamuñu leen xam xamuñu seen jikko xamuñu nu ñu gestionné école bi te Turquie yi fi nekk depuis bi ñu fi nekkee ba tey avec ñoom dañ am BFM 100 pour cent avec ñoom. suñu préparé concours général avec ñoom suñu préparé SAT c'est-à-dire le baccalauréat américain donc on peut pas concevoir ñu koy xëy un beau jour ne la ni quitté pays bi nii nii nii nii sans aucune raison te en plus ñun affaire bi mën nañoo affecté parce que ñeneen ñoo xamuñu leen xam nga seen jikko xam nga la mu leen di indi xam nga xam Erdogan am na si yeneen intention yu bokk ak intention yu mu pays bi donc c'est pas c'est pas logique que ñu leen di quitté pays bi instant bii di nii franchement parle ñun on veut pas Setur quitte le pays ñu ngi ñu ngi ñaan Macky Sall mu jàppale ñu ngir yàlla bàyyi tukki ñu toog ak ñun ba même par fekkee fin d'année la après ñu xool beneen affaire mais instant bi bëgguñu turki dem nii nii nii nii nii nii franchement on peut on peut pas loolu am. Euh, leen di gërëm yéen journalistes yi fi ñëw di gërëm sunu nattango Sénégal yi nga xam ne aussi ñu ngi teew ñun sax ñoo bëgg ndaje mi mu demee nii. parce que boo jëlee Yavuz Selim Thiès xëñ na naam yàgguñu mais tey li fi nekk ci élèves boo jëlee préscolaire ba lycée mais élèves yu takku lañu waxuma ko léegi ci français mais bi ñuy commencé Yavuz Selim euh, élémentaire bi daanaka 33 élèves la ñu commencé en 2009 2011 ñu lancé le collège ak 7 élèves tey collège bi ñu ngi ci 175 élèves de la sixième à la première loolu dafa am lu mu tekki. boo demee préscolaire on a toutes les entités muy première section ba grande section loolu c'est la confiance des parents moom moo ñu fi indi ba tax ñu réaliser lu toll noonu loolu nag ñun ñëpp a ko defandoo muy le personnel sénégalais et le personnel turc ñu xëy benn jour rek ñu dégg gis ministre mu génne assemblée nationale daan ne yow Selim kat am na ñoo xam ne ñooy remplacer la direction mais personnel enseignant bi ak personnel administratif dafay dañuy toog. mais ñu yaakaar ne loolu kenn xamul lu mu doon parce que école du loo xam ne rek dafa naan cëpp taxaw école da nga koy tëral ay tëralin la da ngay nekk tey daal di wu ci l'avenir nga ne école bi euh, école ubbi na tey octobre mais lii mooy sama programme lii mooy sama projet pédagogique fii octobre ndax résultat yi laa bëgg a egg yow silim ñëpp d'accord nañ ne école d'excellence la ci résultat yi mu def ba daaw ci mujj concours général ñun ñoo nekk meilleure école privée du Sénégal ci résultat yu ñu def au concours général pourtant boo xoolee nombre bu ndaw lañu ñu présenté mais boo demee baccalauréat dem BFM également c'est le même dispositif la ñu am kon tey ñun dañu am jaaxle dañu am tiitaange ci li nga xam ne moom moo am xëy benn jour indi ay nit ñoo xam ne xamuñu ndax ay jàngalekat lañu kenn xamul lan lañu ñu ñëw ne ñi fi nekkoon dem leen ñun ñoo leen di remplacer ñun dañ jàpp ne loolu tegul ci yoon te ñun dañu bëgg nag suñu réew bëgg suñuy doom parce que doom yi ñoom ñooy avenir u Sénégal tey bu ñu leen sacrifié c'est tout le Sénégal qui est sacrifié. ngeen ragal euh, administrateur bees bi jàpp ne bu ñëwee yàq moo koy indi waaye du mais dañu am ay dëg-dëg à travers l'Afrique Guinée Somalie ba ñu demee foofu Guinée manu amoon na daanaka huit cent élèves mais bi ñu fa toogee ay weer élèves yi wàññeeku na ba matatuñu cent cinquante mais li ñuy indi mooy déstructurer li fi am. résultat yi du baax parent yi découragé bu parents yi découragé ñu tëj école bi Yavuz Selim mi ngi Sénégal depuis 1997 daanaka 19 ans ñu ngi dugg su daanaka ñu ngi dugg suñu vingtième année kenn mësul dégg lu ñaaw kenn mosu fi dégg propagande kenn mësu fi dégg idéologie ñun dañu tegu ci programme sénégalais yi ci loolu la ñuy tàggat suñuy xale di leen tàggat ci yar ak teggin di leen tàggat ci jàng bu baax ndax seen waajur yi xaalis bi ñuy dépensé fii ci ñoom loolu mooy sunu taxawaay loolu mooy sunu tëralin loolu moo tax ñu am résultat yi ñu am kon tey yaakaar naa autorités yi loolu xam nañ ko kon boog mënuñu comprendre ko autorités xëy rek daan kat am na ñuy jóge fële ñi fi nekkoon nañ dem ñi ñoo leen di remplacer yéen sénégalais yéen a fiy des mais sénégalais yi fi des bu ñu mënul d'accord ak ñooñu nag lu lu muy jur école bi tëj xale yi dem jaxasoo fi mu ne sax xale yi dañ jaxasoo parce que li ñu jëkk a dégg mooy dañu tëj Yavuz Selim loolu dafa jaxase xel yëpp parent boo laaj élève boo laaj li mu lay jëkk laaj mooy monsieur est-ce que dañuy tëj suñu école mais bu ñu tëjee école ñoom fu ñu jëm école ubbi na depuis octobre ñun septembre la ñu commencé donc ça fait trois mois que ñu que ñuy fonctionner ak suñuy ak suñu programme ak suñu projet pédagogique préparer suñuy composition préparer suñu examen blanc préparer suñuy candidat au concours général loolu lépp mën na nax saay looloo tax ñu ne tey jii dañuy woo la presse locale ni ko waa dakaar defee ñun tam Thiès ñu def ko na yeneen région yi nga xam ne fa la Yavuz Selim nekk itam dañ fa def lu mel nii pour que Sénégal ñëpp dégg li xew nous sommes dans un pays de droit Sénégal pays de droit la mënoo spolier bien jàmbur au profit de quelqu'un d'autre loolu aussi on ne peut pas comprendre mais moyen ñu am mooy rassembler ñëpp rek waxtaan ak ñëpp parent yeeg population yeeg parce que fii Yavuz Selim du jàngalekat yi rek am na ñu fiy liggéey di fi daan seen doole ay ay emploi permanent ñooñu tey bu ñu tëjee école bi ay musiba lañu lañ def ci kër yi am na ñeneen ñoo xam ne dañu am ay ay emploi saisonnier lañu ñooñu boo tëjee tey école bi musiba lay doon ci kër yi gis nañ ko Sénégal foo usine tëjee mais am na ñoo xam ne ñii dañuy dee ñii feebar ñii seen doom ñu dàq leen ñun loolu la ñu bañal suñu école njaboot gi suñu njaboot la njabootu Sénégal la moo tax ñu ne foog ñu xeex indi nguur gi mu comprendre que mesure bi c'est une mesure impopulaire mu dellu siwaat indi xelam xam ne école sénégalaise benn la amul Yavuz Selim amul Prytanée amul Mariama Ba c'est l'école sénégalaise qui est menacée parce que lii dal tey Yavuz Selim mën na dal beneen école mën na dal beneen école te loolu la ñu bañ sunu école dafay souffrir depuis quelques années école bi mënatul dox ci yoon je parle de l'école publique il n'y a pas de raison que l'école privée qui est là pour supporter pratiquement l'école privée soit également une école en déliquescence looloo tax ñu ne tey foog ñu toog waxtaan ak nit ni nit ñi comprendre lan mooy suñu motivation woo parent yi woo les personnes de bonne volonté wo les autorités religieuses woo les autorités politiques woo la justice et ce qui nous représente au niveau de l'Assemblée nationale ñu xam ne voilà la situation dans ce pays et qu'il faut en tout cas réagir avec fermeté et pour que cette école-là soit sauvée Merci.